la posture du du du du, du PDS non moi j'ai décidé man personnellement moi je ne plus du PDS. tant que Karim Wade ñëwul ci biir dëkk bi. pourquoi mais parce que Karim Wade mënul nekk Karim bitim réew. mais Karim Wade ñëwul. du du ci coobareem il est il était empêché non non j'explique. nit waxuma sax pour man je parle pas de moi par respect pour les gens du PDS yi nga xam ne xam naa leen su ma ay xarit lañu daje naa ak ñoom assemblée. ñuy xeex si biir dëkk bi comme combien d'années lu ne ñu dugg si lu ne ñu dugg ñu ñu ëf ñoom xam naa fa ay nit yu am leadership yu ñu mën a nekk candidat président de la république ñu fàtte seen ambition ñoom ñëpp pour benn Karim Wade fukki at ak ñaar Karim Wade fukki at lu toll fukki at Karim Wade nekk ci bitim réew di diriger en fait le calendrier politique du Sénégal man je me suis dit su ma amee fulla ak respecté suma bopp mais je discuterai plus des questions de Karim Wade tant que lui ñëwul dugg fii biir Sénégal mais parce que je me respecte man mais est que Karim jox nañu ko assez de gage pour que mu mën a duggat ci réew mais bu fekkente ne joxuñu la assez de gage pour nga dugg ci biir réew mi ça veut dire que tu n'as pas assez de gage pour ñëw la République mais bu ñu dem ba yóbbu ko si biir jalal ñu régler la problème là nga mën a déposer une candidature mais ñëwal Sénégal sagal nit ñi nga nekkal bu ñu tourné ñu gis la bu coow amee ñu gis la bu wax amee ñu ñu gis la mais mënoo toll fële xëy suba teel Sénégal ne no damay dindi conseil constitutionnel dama koy changer cour constitutionnel non damay changer lii non damay dugal proposition de loi non dañoo euh, corrompre kii dañoo def li ñun ñëpp ñu nekk autour de ces questions là trois personnes dee nañu à cause de ces histoires là c'est quand même qui doit prendre ses responsabilités na ñëw les gens du PDS ont besoin de lui le PDS parti historique au Sénégal la depuis 74 booy jàngale instruction civique booy jàngale droit booy jàngale lu ne da ngay jàng PDS da jàng parti socialiste ces partis la dafa am lu ñu war a taxawee ci biir euh, ci ci biir réew donc moi je considère que par respect pour moi le chef de parti que je suis ak ak Karim je considère que nawleem ñi mu nekkal biir PDS ñu fàtte seen bopp fàtte seen ambition fàtte les porté ko depuis ce il doit venir au Sénégal bu ñu amee débat ñu toog a débattrandoo ak moom fii mais d'abord ñoom ils vont ils ont prévu de marcher ils disent pas d'élection euh, sans Karim Wade on va euh, vers un vers un dialogue euh, aujourd'hui y a une jonction conjoncturelle euh, à l'Assemblée nationale entre le PDS et la l'APR e et même aujourd'hui dans la dans l'espace politique euh, les deux partis ku ci nekk da ngay défendre euh, sa sa sa morom que que que pensez-vous de cette situation-là est-ce que c'est une jonction qui vous gêne est-ce que c'est une jonction qui est euh, qui est qui est qui est, qui, qui est bonne pour le devenir du pays ça vie interne parti politique yi la vraiment ils peuvent libre à eux ku ne dem approché wu dem defi li nga bëgg a def dem waxtaan je considère que le PDS am na droit ne dafay dem marche def marche. def mais pas d'élection sans Karim Wade. non loolu c'est weesu na pourquoi weesu parce que le conseil constitutionnel a décidé que euh, euh, li amatul xam nga il faut être conséquent le d c'est à ce niveau-là et ça j'en discutais d'ailleurs avec eux ils savent que lu ñu voté loi de assemblée nationale ils savent que jaaduwul. Hmm. les gens de APR mën nañu ko mën a xam. mais waa PDS yi ils savent que lu ñu jaar parce que. jaaduwul cest à mënuloo bloquer débat yi assemblée nationale boo deful premier tour débat général c'est pas possible bu ñu defee question préalable ba pare dañoo war a ubbi liste débat général nit ñi inscrire bu liste débat général bi jeexee bu ñu defaat deuxième tour de parole ku mu neex jóg ne président damaa bëgg ñu arrêté débat bi fi ñu voté ko bu ñu ci d'accord rek immédiatement on passe le texte au vote mais on pouvait pas le faire en ce moment bu ñu ko def non seulement l'a fait on a considéré que comme maa am majorité am la puissance publique ma ñëw dugal ay gendarme ma dugal ay nit ñu ñu ñu génn leen il faut gis nga noonu nga ko defee woon noonu parce que yaa am loolu aujourd'hui kenn moo amoon doole ba nga ko defee ba noppi et loolu moo tax muy njëriñu conseil constitutionnel conseil constitutionnel dañ ko fay indi parce que dañuy défendre les droits de la majo de la minorité yéen a am doole biir assemblée nationale mënu ngeen def seen abus de majorité parce que lu ñuy wax euh, majorité mais y a l'abus de majorité seen abus de majorité jàllale lu leen neex bi assemblée nationale ñu dem ne si juge bi juge bi rétablirat le le droit garantir la supériorité la suprématie de la constitution loolu mooy contrôle de constitutionnalité bu ñu ko amul rek ñun ñëpp kenn nekkul ci euh, euh, en en sécurité te waxtu wi ngay nekk aujourd'hui au pouvoir yow xamal ne suba si opposition bi ngay mujjee keneen mooy ñëw fii yor doole. conseil constitutionnel bi yow mi amul doole tey yow lay protéger contre ki nga xam ne moo am doole ëllëg c'est pour ça que il faut qu'on respecte les règles du jeu le PDS premièrement xam nga lu tax parce que c'est le premier parti libéral du Sénégal et même de l'Afrique le contrôle de constitutionnalité des lois idéologie libérale la bokk parce que les libéraux ñoom ñooy défendre les libertés individuelles les libertés des minorités donc lu ñuy def noonu c'est même contre l'idéologie justement euh, libérale moo en certain moment il faut savoir raison garder affaire bi du xëccoo du jaayante doole du. ëpp mais raison garder euh, Karim Wade nar a raté deux élections il a raté 2019 il risque de rater 2014 euh, éliminé pour euh, pour pour pour une question de de de binationalité on agite des des des des des des nu mu tudd des accusations de de de corruption visant. Euh, des membres du conseil constitutionnel euh, on, on met sur le banc au banc des accusés le premier ministre euh, le premier ministre Amadou Amadou Ba cocktail boobu yëpp lan moo ci sa xalaat. alors on y doucement. d' abord sur le d' abord sur le rejet de la candidature de Karim Wade. Ouais. d' abord gis nga politique ak leneen ñoo yem quand tu poses un acte da nga koy je fais partie bu muy metti Sénégal les vidéos sont encore là j'ai vu ça les gens du PDS di ko défendre di ko partager lu bëri bi ñu yóbboo Karim Wade CREI yi ma dem xoolaat teg si CREI yi déglu Doudou Ndoye mu ne moom ba mu nekkee ministre moo dindi woon CREI yi j'ai été ñu ëpp lu ñu défendre Karim Wade si biir Sénégal parce que je considérais que procédure yi ñu ko doon teg jaaduwul c'était illégal illégal à chaque fois que man Sénégal j'ai vu ñu briser droit wu kenn jaay kenn doole je suis allé le défendre parce que ay principe moom ma ñor je veux qu'on se batte autour des principes mais booy def politique tam y a des yoo xamante ne boo ko posé da xam ne day am ay conséquences par la suite ce qu'on reproche à Karim Wade je dis moom ci boppam aussi amee nañ jéggal waa PDS pourquoi parce que en fait Karim Wade depuis ñu jeexal dialogue bi il avait toute la possibilité de renoncer à sa candidature à sa à sa nationalité ça veut dire même que Karim Wade 2019 ba muy déposer euh, de dossier mais il avait encore un problème de nationalité ça je le dis pas pour moi mais je le dis parce que je vois les gens du PDS nu ñuy xëy di xeex tous les jours pour Karim donc il y a un certain moment yoo xamante ne y a des choses qu'il faut quand même assumer neexul la wax mais loolu mooy dëgg. parce que aujourd'hui xam nga moom en tant que leader da nga jàpp ne mën nañ ko ci imputer une ah, responsabilité oui c'était sa responsabilité personnelle. les femmes les jeunes les kii yi nekk PDS di ko xeexal mais kenn amul ci sañ-sañu dem déposer ko mu renoncer à sa nationalité c'est à lui mu nekk franc clair ak les gens justement de son de son parti c'est ça aussi la vérité. Aujourd'hui, y a beaucoup de choses qu'on évite de dire. Pourquoi Parce que simplement, chacun considère qu'à un certain moment, il faudra que nous euh, euh, ñu sonn kii mën na la jàppale deuxième tour mën na la jàppale je suis d'accord je suis preneur je considère que c'est un très grand parti qui a une bonne expérience de gouvernance am ay nit am des gens courtois am des gens compétents j'ai beaucoup d'amis euh, la la et euh, au moins on peut s'entendre sur, sur une chose moi je considère personnellement que waxtu wi ñu toll aujourd'hui waratu waratuñoo tere nit mu nekk candidat parce que bii national la je ah considère oui lu ma d'accordul mooy quelqu'un bu assumer des fonctions politiques si beneen réew bëgg a ñëw assumer des fonctions politiques euh, fii Sénégal comme lu Manuel Valls defoon wàcc premier ministre en France fii ne day dem Espagne waxuma sax euh, euh, keneen quelqu'un même mun na liggéey France mën na def leneen mais aujourd'hui moi au moment où j'accepte que ay joueurs binationaux yoo xamante ne souvent juddoowuñu Sénégal nan nangu ñëw mouiller le maillot dem xeex pour indil ma coupe fii Sénégal ñu wàcc ñun ñëpp di la ci biir mbedd bi je considère que vraiment c' est de notre temps. mais, de vouloir mais mais ñu bari dañ doon commencé woon nañ les gens que ni réew mi ni àddina di doxee war nañu quand nekk des progressistes mais musaa euh, bu Karim Wade woon sa nationalité française euh, article 28 de la constitution bi fixé euh, les conditionnalités amul. Karim de nekk président de la République du Sénégal bu demee France il est citoyen français. absolument il parle à son président de la République. Absolument. et ça c'est Mame Adama Gueye euh, moo ci moo ci tijji sama moo ci tijji sama bët est-ce que on peut accepter que ñun notre président de la République war a dem nekk un sujet dans un autre pays que ce soit en France ou aux États-Unis je suis d'accord c'est-à-dire que c'est j'ai j'ai même entendu benn yoon le président Khalifa Sall da expliqué affaire bi naka la duggee ci biir code bi c' était un benn disposition boo xam ne Madior Diouf moom moo ko porté woon ba mu nekk ci biir code bi wax nan nañ ko marchandé nan lañ waxaale ba en définitive le président Abdou Diouf a dû accepter mu mu dugg ci biir code bi. ça a gêné beaucoup de gens parce que euh, soo xalaatee contexte bi ak nit ñi ko seqoon di nga xam ne effectivement mënoon naa gêné ay ay nit yu bari mais àdduna dafay dox tax sànq ma ne la. bu fekkente ne nit dafa am une vie publique en France c'est-à-dire dem na compétir dem ele France def élection def fa leneen def fa leneen euh, mu xëy suba teel ba am fa ay mandat mu bëgg a ñëw dellu soit fii je dis effectivement. mais est-ce qu'un président de la République sénégalaise peut a beneen affaire bëgg a waxaat. deuxième chose mooy man Moussa Tine ma xëy fii dem accueillir la nationalité française wute na ak ki nga xamante ne moom dafa juddu doon France. nga xam ne il est il est français de lait exactement. et on te dit même pas que mënoo nekk candidat on te dit pas ça jusqu'à présent on te dit boo ko bëggee doon il faut renoncer à ta à ta à ta nationalité c'est ça à ce niveau là que Karim la comprendre lu tax mu yéex a demander effectivement ñu ñu dindi ko mais je dis man pour les cas tant que quelqu'un n'a pas eu un intérêt bu mu défendre pour la nation française c'est-à-dire une appartenance affichée politiquement avec la nation euh, euh, française je considère aujourd'hui man soo mënee accepter joueur Sénégal mën naa citer ay ñu bëri ñoo xam ne juddoowuñ fi mën a dem défendre man les couleurs du Sénégal fii ñu toll nii je peux accepter et comprendre que nit mën a am une double nationalité yoo xamante ne daf ko juddoo mais comme bii mooy bu préférence am effectivement mu ñoo def. Euh, États-Unis aux Nations Unies xam nga d'origine tchèque ba mu jógee foofu les Tchèques ont voulu qu'il revienne je pense que c'était la Tchéquie ou la Roumanie en tout cas un des pays de l'Est là mu ñëw nekk sa président là il avait trouvé que c'était pas décent mu mu renoncer justement à, à à donc des cas comme ça je peux le comprendre. on doit euh, bon Karim Wade ne fera pas partie euh, de de cette élection. loolu laa jiwul ak yow je dis pas pour man c'est pas pour man man li ma ci xalaat. amul njëriñ xam nga man lu ma am. mais si am na njëriñ. non non je t' explique pourquoi non j' li tax amul njëriñ mooy sama xalaat mën na doon sama xalaat mais mun mënta am effet réel. ci constitution amu ci. la vérité c' que le conseil a décidé que moom mun ta nekk candidat benn ñuy hésiter ndax conseil bi dafay demander conseil bi rendre hier une autre décision confirmant sa première jurisprudence ne kii mënul nekk candidat voilà les dix neuf ki nga xam ne ñoom ñooy nekk candidat am Macky Sall aujourd'hui je sais pas ce a dans le, le communiqué du conseil de il dit il parle de finalisation du processus, du finalisation ça veut que reprendre wuñu li ñu tàmbale woon euh, euh, la ñuy yeggale donc au moins sur ce point là je pense alors man je, m'adresse aux gens du PDS mais yéen da ngeen yàgg ci politique ay nandite ngeen bu leen nekk parti saagakat léegi gis naa da ngeen di nekk di saaga nit ñi parce que les gens donnent leur avis bu leen mel noonu euh, le PDS c'est un grand parti les militants du PDS c'est des gens euh, voilà yu yu xam politique voilà yu tàmm débat politique débat politique bokk ngeen ci ñi ko instauré dans ce pays là ouverture démocratique seen leader moo ko fi instauré ne soit bu leen toppandoo jikko yu bon yooyu génn leen ci li ngeen ci li ngeen nekk dem ba tey yéen ak <laughs> dugg sama messenger di ma saaga rek bàyyi leen loolu <laughs> <laughs> c'est une petite digression ak gaaral bu ndaw non non non mais mais en je, en fait je, je nga je comprends en fait. ñu nekk c'est une situation très difficile c'est-à-dire se sont investis lu ñu dajul amul coono bu ñu am dajul amul ci kaw si suuf pour que Karim Wade soit candidat je le comprends très bien je suis même d'accord que même mesure bu ñu leen appliquer mesure optionnelle je ne suis pas d'accord avec la mesure mais la loi elle est dure mais la, mais, mais c'est en fait ça le problème alors, je voudrais que le par la présence de Karim Wade au Sénégal je considère aujourd'hui ak nit ñi nu ñu def na ñëw ñibbisi waat fii Sénégal xëy na bu fi nekkoon depuis le départ li ko dal nii tey sax xëy na du ko dal